seen centre commercial bu diwaanu Borom Xaas moo di may seen sketch kër gi. kese da ngay fen am na koo munul gis da bi ma lay suba su ma sil war lee man kolal su ma kam-kam defu ma ko di ko maye yàlla moo tax mooy def kon doxal maa rek ma ñàpp sax eh, eh joni ko eh, eh, ko lu mu la jagal jagal eh mi ma arrêté waay baal leen ma ko fi baal leen ma ko fi wooy yow maas góor du maas góor du maas waaw c'est bon dafa am loo koy doy wax ko bul wuy sama te yow bul ñëw bu may ñëw waaw wax sa bopp kon waaw dama tëj yaa ñaaw baa yow yaa ñu ko bëree.

tey rek luusa nga ca kii kaawam jàtt lijjanti ndax soxla na la man bu fekkee ni man aw ma doole ju ma ko teg waaye déglu da dama lay wax même bu fekkee ni man aw ma doole ju ma yoree jabar tax na sa mag ñëw attaqué ma saaga ma dem pël baa ngi nii mi ngi may yàpp ñëw attaqué ma dem déglu waaw léegi dafa am situation boo war a lijjanti mu ëpp importance ñu waxtaane ko balaa waa koñ bi di ko xam may taaj say mbokk booy bi taxaw nii juruma ko. salaam. man xaw laa ilaaha illallah sayyidina wa mawlana Muhammad ay sama ndey. xam nga lu ma la wax. ay yaa booy. waaye fii dama lay wax. dama lay wax dama lay wax. boo bëggee ñu yuuxu ko boo bëggee ñu waxtaane ko. waaye sama ndey nan ko yuuxu. parce que nijaay man ngay tam man ngay jéem jaalo. dama lay wax dama lay wax xale bi yorul sama jikko. kay jaga si kay jot na kanam benn. bakkan benn bët benn njoolaay benn ba ci wow koŋ nga ni taxaw waaw lu def kii boo ko nee jàkk xam ne yaa ko jur xool xool sa doom ni mu ràgg ni nga ràgg rek la ràgg ngeen ànd sutte ko seen kanam di mel ni aw dal sa nopp yooyu la yor sa bopp boobu ne collo la di mel ni kur fañ moom la yor nga ne juróo kii kii ko koy jur vraiment waral dëkk bi ba mu daj kan la ni rool vraiment ah nijaay man kon damaa njaalo ba jël sama doom wax nga dëgg dangaa takk jabar mënoo ca la too loolu nan ci dem ba mu neex. très bien bu fi sa baay duggatee dinaa ko toroxal ba mu mel ni daqaar muy mbeleleli. très léegi nag jéngu jot na xaru jot na comme takk nga jabar jiñ ma njaaloo léegi na dafante jot na lu fu ngeen mat ab rek passé naa ko. di ñëwaat ci biti. ñëwaat ci biti ci biti. dem naa ma dama toog ma toog yaa ko maye yaa ko maye muur ko mu ñëw génnal. waay ba ma joxee ma joxee. jox leen ma sama ah. doom ji jox leen ma sama doom ji. waaye bu ko jëree jar ko nag. jox leen ma sama doom ji ma yóbbu. yow noppi waay ba sa jooy yi. caba caba caba. naam. bi situation. waaw dinaa ko jël. bàyyi. bu leen ma bàyyi. bu doy ma gis la bàyyi ma gis la bàyyi kaay bàyyi ma gis la. waaw waaw kaay kaay kaay. loo ma mën a wax ko jox ma yóbbu ko benn yoon. yoo xul ca kaw ñu jox la sa doom nga yóbbu yoo xul de. yóbbul jox leen doom ji sa doom ju mel nii di ko ba fii. boo ma doon yow su may dem yóbbaale ko de amal fula na dégg nga. mbay ma nag la way wax. kii dama ko yóbbu ci kër ga fële. ñii laa doon testé. mbaay man sax dem kër gi. ah génn génn ci biir. kii damay wax ak moom. yéen seen kër nii la mel. yéen nii ngeen mel. fii sëy bi kenn dootu ko fi doxee. ñëw yi nga fóot fóotal fóotal lan sama yaram fóotal. fóotal fóotal fóotal bàcc fóotal. man gan laa taxawal sigil. sigil man gan laa. dafa fóot yéen dafa xooj yéen samay ma samay paan. yow lan la yow lan la lu ma jege kii rek nga ñëw taxaw nii dañuy waxtaan man gan laa du ma wax. lii lan la. fóotal eh euh, soxna si yow ku pom. ah fóotal. tëdd pom sëy bi commencé bu sax du ci fekk ko da ngay wog a suuf. Hmm. gaawal feteel. ah yéen xajuma eh, ala xeen. Ah, xajuma ala xeen wokk sax kon ni ku la depuis. quand même deux ans trois ans nii tan be kabat tan be kabat tan. be kabat tan oh oh xanaa ne dum doon ay euh, non kay. Ah, bàyyi weer bi. foo taw taxawal bu weer taxawal laa dëkk eh, ba nga ko eh. takkee ba tey. taxawal an an ko bi seytaan sof sof odo sof odo caɓa ah wallahi bu baax jigéen bu gore jigéen boo xamante lu mu wax si yoon la ko teg wax dëgg fa kër bii nii la mel nii oo eh. daal eh, da ngeen di réglé na voilà réglé borom kër gee yàq këram dafa saytaane da ngeen di réglé na borom ah. eh, yaram neexul caba caba bul be ah, an an an ka pullode he voilà wa seesidaan kii daa war a kii dëgg waaw kii takk ko te yàlla tax da ko takk ndax parce que parce que sama papa kii de parce que yow tam waxaat wax góor ngay wallak wallak nan la yàlla bindee demal ni mu la bindee demal yàlla bindee man dama man duma sama papa eh. bon yow da ngaa ne dama lay nokku léegi sax. léegi sax. waxtaan. man mënumaa waxtaan ak yow mënumaa waxtaan ak kenn fi mu toll nii bàyyi leen ma ànd ak sama sago xam ñan ñoo bëgg ak ñoo ma bañ ma sama kër. man gan laa. waaw da ngay na luwee demal toog fi nga luwee. gan doo toog gang. yow da ngay xeex. déedéet ah! dama koy expliqué dama bëgg ñu dal waaw man bi mu ñëwee ba léegi ko gulaalee luu ko hadi tan taw mi doo du ma ni waaw yow kii sa nijaay la xaw ma sa jarbaat waaw nee ko na bàyyi sama jabar jabaram lan la def sa jabar. waaw laay laay nee na tey violé sa jabar. déedéet ko naan bongo debbo makko no wonde e no wonde e seydaane mboɗo waawi yaltinde seydaane o o jaɓaani mi battoo debbo o par ce que debbo o sika ko dote ɗe min ko mbaɗanmi dote dote an wo lomo ko janano ah, wa an yoro eh. ko mbatta ɗo ala ah, be gonnomi reglude yo yoro bima ñëwee ba léegi mag yow ah, ah, tooge nu ngeen sama jabar ji rek yoro reenon wona gong yoro moytuma walla yo fenat yoro moytuma sambu ɓeɗo sambu yow ndekadi yow da ngay fen yaa tan yoro yaa ndeer bonɗa yawna yaa ndeer tan mboɗomi haade debbo ma tan haade debbo ma wona fenala yoɓenne seedi mbimomi debbo mboɗo wawi wok beele an ka daktirani wari mboɗo wayi nga yow voilà dama lay waxat waaw moom waaw deux ans waaw yaa ngi déglu mu la foofu dañ ko yóbbu refle boobu sole waru sedd sole waru sedd kii tamit sole waru sedd sole waru sedd non non sama xol bi taas na trop tey mer naa vraiment dama mer kii de war nga ko jox dix piqûres pour le calmement man moom damay gérer affaire bi pour mu sedd. gis nga euh, coow li mel ni ma koy seddale. waaw ay ñuus laa lay def yu tari. yow bu boobu ñuus yow sant sa sant baay yow. boobu ñuus man nga naan sa sant baay. sant sa sant baay yow. ah tool waru set nañ na jax na jax. léegi comme ça sa doom mooy def la lii. boo waxee sama jël ba dara léegi ma naqal. très bien sa doom mooy def la lii. boo waxee sama jël ba dara ñu xeex. très bien. yàlla defal lu la neex. allez. kër gi këru ay la maa maa ko sanc jooy ngaa jooy jooy jooy yow jooy nga di nga gën a jooy nag jooy maison maison raaj yaa tëkk jabar ci ay nar chaque jour histoire chaque jour histoire yow fii ci lay wax laa du ko am ci yoon yoro pulo anaa la eh. gàll maa wëddi gàll maa wëddi eh, yaa fiir yaa fiir Eh, eh, xoolal man bi mu ñëwee bi mu ñëwee ba léegi kaw bi mu ñëwee maa ngi lay kool maa ngi lay kool affaire ñax ko wax la xam wax. eh Seye ngay wax. mu dafa gaaw si mbéy. eh eh, eh. li ma la a wax. man duma sa looy wax ma waxal. sama jaww papa. waaw hmm. ñaareel. waaw dama am lu ma seetlu sa diggante moom. loo seet. moom loo xalaat loo xalaat. kalaas si la. loo xalaat si la. moom boo dugg see boo dugg see moom bu nekk fi boo dugg see rek dina sell ba jëpp yoo la koy teg dina xool rek. dina xool rek ni la lay xoolee rek nii. sax demul fenn. si la ñu doon xalaat xanaa profité yi. eh waxuma loolu de yore. gaaw. eh yooyu. wala sabala Aliou. papa papa eh waaw bala moo dugg naan loolu rek eh? eh, joni kaw mais dañuy waxtaan waaw yow tey si bëti ngay fanaan de